jaay sama gars yi saay-saay poésie noom so daal la xoos na ci dib nag xoos na ci dib de nee dib def nga ay featuring ak ay des rappeurs internationaux tel que Lefa ak euh, Youssoufa yemoo ci loolu nga rap en français complexe bi nga doon raboo sax olof mais taxawul sa rap progressé pal géographiquement passé woo grand yof boobu de ay koñ gazel noonu passé woo foofu de ñu naan déet mu ne noonu dib da ngay wax waxi stat Ismaël Fil teewu mënoo rab bàyyi waxi stat ay stream ak yooyu Ismaël Fil parfois les chiffres mentent yow chiffres yi ngay am da bëri supporter kese te pas a ngay ma de tax ma dem relation ñu ne ko Omzo nga ni mu ne fag rab gaal seen fayu dara siiw rek la ma jox joxuma dara rab gaa seen fayu samay góom bàyyi ma nax samay doom neen rab bi dañuy wax nii dañuy génn album un mois duñu clip classe u ndib gi yoruñu lekkuñu naanuñu non so daal saay saay poésie sama gars <laughs>